waaye jéggal na sunuy rëcc rëcc noo ngi julli ci ar rasulu muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak taabiina lahu bi ihsanin ila yawmi ddin comme ni leen ko waxee woon ci xutba yele passé ne woon dañuy ñëw ci silsilatu daawati rusuli wal anbiya mooy toftaloo gi nga xam ni dañu koy toftale ci woote gi yonent yi doon wootee gisoon nañ ci bind bu njëkk bi muy nabiyullahi nuux wa ma laaqa min qawmi yonent yàlla nuux ak la mu jot a daj ci aw nitam tey noo ngi ñëw ci qissatu huud alayhi salaam ginnaaw yonent yàlla nuux xam ngeen ni suuf si ña ca bonoon yàlla alak ne leen mu desoon tuuti ci aw mbindeef woo xam ni ñoom ñoo àndoon ak yonent yàlla nuux ca gaal ga ña muccoon rek mooy ña àndoon ak nuux gaal gi di daw ak ñoom te gaal googu bismillahi majriha wa mursaha borom bi nee na gaal gi bismillah moo koy dawal moo koy taxawal gaal googu daw na ba taxaw ci juudi juudi ca Irak la ña fa nekkoon ñoom ñoo sosuwaat nekkaat beneen peuple bu bees nuux dund foofu ak njabootam ak ña ko gëmoon ba yàlla dogal nuux génn àdduna nit ña fa def nag commencé waat nañu nekk ñoo xam ni dañoo tàmbalewaat di fàtte woote tawhid ndax xam ngeen ni seytaane du bàyyi benn yoon waxtu wu nekk dafay lal ay ndëgg fërëx di dugal doomu aadama moo tax alquran jamono bu nekk du deñ di ñu fàttali di ñu xalaatloo ci xeet ya nga xam ni weesu nañ lañu amoon ci ay moye ak i kàttan ngir ñun ñu jàngat ci suñu ci jàngatee lan lañuy ñuy mooy liñ ciy jëlee comme résumé mooy ñu moytu la leen daloon daa ñuy dal moo tax borom bi taala wa tabaarak ne xanaa doxu leen ci suuf ngeen xool ña leen jiitu woon nan la ñu mujjee ñooña day ñoo leen ëppoon doole demoon nañ ba mokkal suuf dundal ko tabax ci ay kër jekkat ko bi yonent yi ñëwee waar leen ñu bari jàpp ni ñoom ñoo fi nekkal seen bopp borom bi nee na tabaraka wa taala tooñu leen waaye ñoom ñoo tooñ seen bopp mbokk yi xista yonent yàlla huud dafay xaw a nuru dund yonent yàlla nuux waaye dafa am différence ndax yonent yàlla huud aw nitam nit lañu ñoo xam ne ñu amoon alal lañu ñu amoon kàttan lañu ñu daan yett ay montagne di ci dëkk amoon am am lool am njaboot am ab jur am ak meññent waaye loolu fu mu leen jëme da leen a jëme ci yàqu gu jéggi dayo da leen a jëme ci muy puukarewoo seen alal da leen a jëme ci ñuy tooñ borom bi ne wa qad xaaba man xamala zulma képp ku gàddu aw tooñ yëgal ni perte nga moo xam nag yàlla fay la ko léegi wala mu xaaree la ko àllaaxira mbokk yi nit yonent yàlla nuux borom bi ne xanaa dooma solo nan la sa borom def qawmu aad qawmu aad ak seen maam nga xam ni seen maam ñoom qawmu aad boo leen bëgge xam mooy iram borom bi ne na zaatil imaad ñu nekk ay borom keno nekk ay boromi château nekk ay boromi kër yu mag a mag mbokk yi borom bi mi ngi misaal ci nit yu yonent yàlla huud ni ñu tolloon borom bi ne wa zaadakum fi lxalqi basta yàlla nee na da leen a may sax yokku leen yéen ngeen ëpp doole ñi fi nekkoon tam ay nit lañ ñoo xamante ni dañoo ponkaloon ponkal bu jéggi dayo gudd gudd bu jéggi dayo ñooñu dañoo demoon ba da ngay xaw a jàpp ni ñoog dara bu tàndarma ñoo tolloo ci yaatu moo tax borom bi ne ka annahum ajaazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya mbokk yi borom bi tabaraka wa taala nee na aw nit aw xeet la mu waxoon nit yont yàlla nuux daf leen a waxoon jaamu leen yàlla ñu bañ nuux wax ba sonn ñu mujj mbugal ñëw bi huut ñëwee da leen a fàttali ne leen ah niti nuux yi fi nekkoon te yàlla alag leen yéen a leen remplacé wadkuru إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح فاتلكوا لين ين يين رامبلاس نيتو يونتي يالا نوح نيتو يونتي يالا نوح لي ني ديفون بو ني مبوغال لين كون مويتو لين نين ديف لو مل نونو ني مبوغال لين لولو لا استوار دي تيك استوار دا فاي تيك ني لي لا باسي بو فكيه لو بون لا وون غا بان كو ديف سو فكيه لو باخ لا غا ديف كو مو ني لين فاتلكوا لين سين بوروم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون فين برم مين لين أبجون أم جنك أم خر أم بي أم فس أم لب نيلا وجنات وعيون برم بوبو مين لين أي طول أكي سيولة سنين باي مباركيل واي دمبا مجري مجلين دي وخني دمجين بسخ سين موية مين لين دنجين دي نيوتي مونتاني يكتوكو def ko kër dëkk ci mbokk yi kan moom mësa def loolu ci daara amul ci kaw suuf ko mësa def montagne yi mu toll nga turkiri ko yàq ko ba mu nekk kër étage nga dëkk ci sa morom noonu kon yàlla dañuy wan misaale ñooñu ni ñu fonkale woon ay géant lañ ay fonkal lañ ñu amoon xel ñu mënoon a liggéey loolu ñu doon def da leen a yóbbuwoon ci lu ñu bëgg a tabax tabax ko waaye da leen a mujj indi ci lu bew borom bi ne leen atabnuuna bi kulli riin ayatan tabasuun yéen daal montagne bu ngeen jot tabax ko defar ko mu nekk keemaan ngeen di ci fooye ubbi ay danserie ubbi ay hôtel ubbi ay auberge ubbi ay bërëbu fowukaay parce que am ngeen alal parce que am ngeen doole parce que am ngeen moyen li leen yàlla jox ci kattan ak alal daf leen ko jox pour ngeen jaamu ko santee ko ko waaye joxu leen ko pour ngeen moye ko malheureusement nit ñi léegi noonu la ñu nit ñi léegi ku yàlla jox alal danga jàpp ni yow danga war a fo même boo fowul nit ñi commencé ñëw sa ndey a ko liggéey sa bàyyi waaja yow doomu nàngam nga mënoo ñàkk mel nii nii nga war a mel nga topp loola ba day dem ba mën ngaa bew ba àgg ci nga jàppee sa bopp yàlla ndax bu fekkee ni da nga bëri alal loo joxoñ ñu def loo santaane ñu def su yàggee da lay yóbbu ci ak puukëri puukare bu yàggee dana yóbbu ci bew loolu moo tax nitu état yi bew di leen yomb moo xam ci président yi ñu ci bew day bari ministre yi ñu ciy bew day bari lan moo tax li ñu téye ak kàddu yu ñu yore da leen di fàtteloo ni am na borom bu leen ko jox léegi dañuy jàpp ni ñoom ñoo jox seen bopp moo tax borom bi ne leen wa tattaxiduuna ala allakum taxluduun ci kàddu yonent yàlla huud mu ne leen ah léegi da ngeen a bëgg jël seen alal tabax ci ay usine jël seen alal dugal ko ay banque ngeen foog ni alal jooju dana leen sax a sax ci kaw suuf ah non déedéet dem na ba sax bu ngeen di dox wala ngeen mere nit di ko duma da ngeen koy jaay doole wa ida batashtum batashtum jabbaarin ci sigré ci kaw suuf tey ñaata xale yu góor la yàlla may mooy ngay liggéey yàlla defal la tawfiq moo xam ingénieur nga wala docteur nga walla pharmacien nga en tout cas am nga moyen mën am sax nga nekk consultant di génn ñoom lay gën a dal nga nekk koo xam ni ci état ngay dox soo bëggee chaque heure nga tourné dem aéroport jet jël avion tey yaa nga dem Canada séminaire suba yaa nga dem Japon séminaire ginnaaw suba yaa ngi dem France colonie walla colloque mujj gi léegi ci avion yi ngay nekk di dox loolu li mu la war a fàttali mooy ngëneelu yàlla bi mu def ci yow ak yërmandeem ndax zalika fadlullahi yutihi man yasha yàlla may na la nga nekk ministre may na la nga nekk cadre may na la nga nekk borom alal waykat yi sam la nga jël alal boobu nag bug koo tàggat ci jigéen ju rafet bu nekk nga séq ak moom bu ko tàggat ci ku ñu ni miis la nga fexe am numéro woo ko luyel ko appartement nëbbu ko sa jabar nëbbu ko say doom am na ay appartement yu nekk ci réew mi foo xam ni wallahi ladi laa ilaha gayru ay kilifa ci gouvernement bi ak ñu dul ñoom ñoo ko luyeel ñan lañ koy luyeel ay jet setters lañ koy luyeel ay jet setters ay xale yu jigéen yoo xam ni taaru nañ seytaane mën na leen bewloo na leen ñu nga di leen di fayal appartement six cent mille jox leen oto million millions ñuy dawal ay Kia ñii di dawal ay ay ay Cherokee ñii sax nga mën nga leen a jox ba jox leen ay Range Rover ay Velar ay xale yu jigéen di ko dawal te fekk ay ministre ñoo leen ko jox fekk ay nit ñoo leen ko jox ñu leen ko jox alal di ñu am seeni mbokk yu ñu bokkal benn deret ñoo nga soxla joxuñu leen ñu nga bëgg liggéey joxuñu leen léegi alal jooju nag tax laa bew borom bi ne wa ida batastum batastum jabbarin yi dox di yëkkati tànk di këdd këddi garde corps yi jege la nga tourné boo demee hôtel bi tey suba yaa nga hôtel bee yaa ngi multiplier say bàkkaar yaa ngi jël alal bi di ko tàggat ci lu neexul yàlla borom bi taala wa tabaarak nag di nettali yow nit mi yàlla may loolu ndax war ngaa delloo yàlla njukkal ci di ko moy déedéet waroo ko delloo ndax yàlla dafa yëkkati nga teg ko sa loxo da war a gore nga jaamu yàlla nga def li yàlla santaane waaye ñu bëri ci borom alal yi dañuy weddi moo tax borom bi nee na wa tilka aadun jahadu bi ayaati rabbihim wa asaw rusula wattabau amra kulli jabbaarin anid yàlla nee na ñooñee wéy nitu aad la ñu ne ah mu ne jahadu bi ayaati rabbihim kéemaan yi seen borom indi dañu ko weddi alal bi ñu am tax na boo leen ne yàlla nee na ñu dummóoyu alal bi ñu am tax na boo leen ne yonent nee na ñu dummóoyu alal bi ñu am tax na boo leen waaree faalewuñ la ñen la ñuy toogal moykat fokat caaxaankat moo tax mu ne wa asaw rusula nitu aad weddi nañ yonent yi benn yonent boo weddi weddi nga ba ca des ndax laa nufarriqu bayna ahadin rusuli kon weddi nañ ay yonent yàlla ñoom nitu aad lan la ñu topp léegi wattabau amra kulli jabbarin alim yàlla nee ñu topp ndigalu bépp bàlli bépp saay-saay bépp ku bon bu joxe ndigal ñu def ndax li mu leen di jox ci ndigal ci seeni bopp lay nekk tey am na ñoo xam ne seen àdduna mooy terrain bu yaatu ñu jël ko tabax ko lan lañ koy def hôtel parce que moo ëpp xaalis mbokk yow mi tabax hôtel alal bi nga ci récolté ndax mun nga koo lay dërëm dërëm ci kanamu yàlla ndax mën nga ko ndax mën nga ko allahu akbar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne bokk na ci li ñuy laaj doomu aadama an maalihi fii maktasabahu wa fii ma anfaqa am na riwaaya min ayna aktasabahu wa fii ma anfaqa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne ku nekk ci ñun sa alal danañ la laaj foo ko liggéeyee foo ko financé da ngaa détourné da jël alalu jàmbur da nga jaay doole benn par benn di nga taxaw yaa koy waxal sa bopp yaa koy leeralal sa bopp iqra kitaabak kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba say jëf yaa koy wax benn par benn mbokk yi ñu ñoom ñu dul ñu bon borom bi ne na seen alal ak seen kàttan beewloo na leen dem nañu ba jàpp ñu ne man asaddu minna quwwa ñoom nitu aat dañuy taxaw naan ñi yàlla ñu mës a bind ñan ñoo ci tolloog ñun kan moo ñu ëpp ñun am nañu doole am nañu taxawaay am nañu alal am nañu lépp kon bu ñu fontoo sa yàlla bi ngay wax bu doon dëgg kon du ñu am lii ñun ñoo ko jox suñu bopp ñoo ko liggéey wut na leen déedéet du nii de ñu ko liggéey gis nga ñun ñoo yett montagne yi ñun ñoo tabax kër yi sa yàlla bi ngay wax dara huud na leen uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin en tout cas <coughs> message yàlla jottali naa leen ko conseillé naa leen laaye biir naa leen uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin jottali naa leen kàddu yi sama borom te conseillé naa leen alal bi ngeen am li ngeen di def bu ngeen jàppee ni seeni fexe la ay nax ñëw na mu woo leen ci jaamu yàlla moom huut ñu bàyyi xërëm ñu bàyyi fa ñukk huut ku nekk yett sa yàlla di fa jaamu ku nekk yett sa xërëm di fa jaamu borom bi mi nga ñuy wax xool leen huut li ko dal nee na wa ila aadin axaahum huuda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون yàlla neena ci ci nitu adiya yónni na ko seen mbokk bu ñu naan hud yàlla buy yónni yonent du ko jëlé fële indi ko fi ci fa nga dëkk lay juddo yónni na ñëw lañ yonent bi ñëw neen tey ngeen a ragal yàlla ñu bañ wax na leen ne fazkuru ala allahi laallakum tuflihun fàttaliku leen may yi leen yàlla may ndax ngeen texe fàttaliku leen may yi leen yàlla may ndax ngeen taxé والله لي أملكم كو وقفني كو قمن تونا دي وحاق مون من يكون نخي يانج فتح اللي كو يانج خلاص اللي نيان لماي من ما أستاذ وعدت لا دي ما يانج خلاص ليلي مجوم لنا من أنجم خمنا ني جن لا يان لماي نما جن قدام أقول فن أم موين أم لب بغ جل سنداو بوغ جيكو تاقل كي دانسي نو دانسي نو ويكات بو انفيتي نغا دم نلو بو دوزي دي متين جوكتال سا أوتو léegi lan ngay xool mooy ban dansin moo am programme nga dem fa nekk fa jigéen ñi ba midi nga tourné nekk ci say liggéey da nga foog loolu day continuer àdduna da lay nax wallahi day continuer du continuer sarabun bi qiia ñett mi ngi sa kanam di la xaar mën nga accidenté léegi nga dee ñaareel bi feebar bu bon mu ngi lay xaar ñetteel bi nga jékki la nga amoon amatoo kon yow ndaw na nga xalaat kon fadkuru ala allah fàttaliku leen mayu yàlla la àllakum tuflixuun yow mi bëgg a mooy xalaatal xalaatal li la yàlla jox jàppal ni am na ñu ko mënoon jox wuut na leen tuub leen ragal leen yàlla dellu leen ci yàlla ne leen wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi wuut na leen ay sama xeet jéggilu leen seen borom tuub leen jëm ci moom su ngeen ko defee yursilis samaa عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوة ولا تتولوا مجرمين نلين بس مجين جيجلو يالا مجين توب يالا دانا يبال أسمان مدوتي سوف نانغو يالا مايلين كاتن تكاو كاتن موتاخ borom xam-xam yi di wax ni nit buy jéggalu yàlla lu bëri yàlla da koy may kàttanu wuur ak kàttanu maana képp koo xam ne yaa ngi taxoo taxoo tuub di dellu ci yàlla yàlla da lay may yooyu yëpp huut na leen woo bi ma leen woo laajuma leen ci xaalis ñaanuma leen yaa qawmi laa asalukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladi fatarani afala taaqiluun dafa am benn daayi ndeysaan mu ne ci benn oto di waaraat waxtaan di waxtaan ndeysaan ba ñu jege fi ñuy waaj a wàcc benn góor yëkkati mille francs jox ko benn maire yëkkati deux cent cinquante jox ko mu téye mu téye bay waaj a wàcc yëkkati vingt mille may ko paa bi yëkkati vingt mille may ko maire mais bi ni ko kon yelwaanoo woon xoola ma lii nit ñi boo ne yàlla leen di foog ñu da nga ñàkk bay yelwaan da nga ñàkk pour ñoom dañoo jàpp ni ki naan yonent bi nee na yàlla nee na dafa lu mu ci jublu mooy sarax fekk loolu nañ ñu tàmbal déedéet da di waar da di fàttali wallahi ku nekk la may vingt mille francs wàcc xamal leen ni li ngeen may jox maa leen ko ëppale dama jël sama métier def ko woote ci yoonu yàlla ndax mooy sama devoir dugg naa ci oto bi occasion la ma waar leen ma waxtaan ak yéen moo tax yaa qawmi laa asalukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladi fatarani laaju ma leen fay ci li ma leen jox ci may fay mooy sama borom afala taaqiluun xanaa du ngeen am xel mbokk yi lan la ñu mujj nag commencé jaamaar loo ko huut nit ñi boo leen indilee ay sectal yu ñu mënta weddi lu ñu mënta dindi dañoo commencé nag di la tuumaal mi ngi ko wax inna la naraaka fi safaha wa inna la nadunnuka min al alkaadibin ne ko huud yow da nga dof quoi yow da nga defe yow da ngay seen quoi moo gën a tuuti ci liñ lay wax yow mi woote ci yoon yàlla lu ñu am ci lu ñaaw danañ la ko tuumaal in naqulu illa ataraaka baadu alihatina bi suu ñun dañoo foog ni suñu xërëm yi ñoo la dof loo yow yow dof nga ku bàyyiwul lii nangam nangam nangam dem nañ ba ni ko indil nga ñu lu leer waaye ñoo tey bàyyiwul loola nag mooy dëgg nit ñi dëgg di indi lu leer nañ ñu xam ne mënuñ ci dara ñu ne la hee بل نوتاي والله أي نيت وخنا يسوع قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وقلوا يقول توقع دي من تدخل ما يسوع مامي توقع دي من تدخل ما يسوع مامي توقع دي من تدخل ما يسوع جابون كنا أم كن كنا expression بطل لك يو بابا غاي وخي موتان ñu ne ko hud noppalul sa wax ji mën ta tax ñu bàyyi suñu xërëm yi ñu xamal ko ne dundu la gëm wa ma nahnu laka bi muminin ñoom dañoo jàpp ne huut la ñuy gëm déedéet waaye yàlla la ñuy gëm subhanahu wa taala léegi nag dem nañu waar mi sonal na leen liñ leen di waar léeg-léeg nit ñi ndeysaan da ngay dégg dañ ma koy wax di ma bind ay message ci boo xam lu mel noonu yow doo ñu dimbale xanaa yow yàlla nee na xanaa doo wax ci ci diversité yi ñu xew yi demee nii ma ni waa ji da ngeen maa toppoon su ngeen ma toppoon man ci lu ne lay wax incha allah ci lépp lu ma xamni war nañ ci wax dana ci wax waye nak tawhid moy suma priorité xeyna tawhid bi ngeen atanul wala da leen metti bok waye inshallah ci lool la wax ndax mo nekkoon wote yonenti xam nga luñu mujjé mujjee wax wut سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعدين سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعدين هود نبل waar nga ñu walla waaroo ñu bàyyi wuñu li ñu ne xoolal dimbale ñu ci la ñuy dee subhanallah waliyadu billah ku ñëw ne leen ana lakum naasihun amin dama ñëw di leen laay biir ñu bañ ne xoolal waaral ba dee waxal ba dee mais gëmuñu la gëmuñu li nga indi ndax tax na wut bàyyi déedéet sant bàyyi ndax risaala dem lañ bañu ko fàttinaa bi ma taiduna in kunta min as bu fekkee li ngay wax dëgg la kay neel yàlla mu taw xeer neel yàlla mu rey ñu neel yàlla mu nangam ñu huut nag jóg ne leen qad waqaa alaykum min rabbikum rij gis nga li ngeen di wax am na ba pare sama borom préparé na ko te dinaa ñëw dina ñëw loolu borom bi préparé mbugal mu comme bàyyiwu leen mbugal mi dana ñëw qaala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun léegi nag seedeel leen ma ci kanamu yàlla ne man li ngeen di def defuma ko bokkaale ma ndax dama leen a woo jaamuma xërëm ndax dama leen woo defuma bidaa ndax dama leen woo lu ngeen mën nag da ngeen pare ne da ngeen may rey aca préparé leen da ngeen pare ne da ngeen may bóor da ngeen may saaga def lool lu leen neex def leen wallahi maa ngi leen di waxal ni fu ngeen amee fexe def leen fa kii duuni jamian tumma la tundiruun fexe leen bu leen ma bàyyi man ci yàlla laa wéeru allahu akbar mbokk yi loola mooy woote ci yàlla huud borom bi taala wa gis na ni xeet wi dañoo bañ xeet wi bugguñu dëgg xeet wi bugguñu santaane yàlla ay bakkan lañuy ñuy topp kon ndaw ñi maa ngi leen di fàttali wax ji lu mu bëri bëri yàlla rek moo tax ñu ko wax waaye ku nekk ci ñun na jàpp ni bis mi ngi sa kanam di la xaar te bis boobu yow rek moo xam boo dee góor moo xam boo dee jigéen sa doole mayu la nga sax sa alal mayu la nga sax fi say talibé mayu la nga sax fi say pexe mayu la nga sax fi kon xolal sa digënté sa borom ni nga juddo ñak amo dara noné ngay mujjé boy dé do am dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam inna allah la yundi bi zalim hatta ida akhadahu lam yuslim nee yàlla dana bàyyi tooñkat di diko jox ngay liggéey di am di moy di liggéey di am di mooy nga foog yàlla dalaa fàtte déedéet dalay bàyyi rek dema dem ba gis jot mu ne leen nit nee na bu la nee nit di nga xam inna batsha rabbika la sadid téewub sa borom lu metti la mbokk yi bokk na ci li yàlla mbugalee nitu aad yi te ñooy xaw mi huut comme dañoo bëri jur bëri ay tool kër yi jekk lépp jekk yàlla ni mu leen mbugalee mooy dafa téye ngelaw li ngelawatu mu mbóoya mu téye asamaan tawul mu bàyyi suuf mu berkoor teen bu ñu daw dem teen bi ñiis dëkk bi mar sayaan bu ñu dem ndox ma dem su ñu demee fa dex ya nekkoon ndox ma lépp dem dëkk bi nag commencé naa metti jëf ji commencé naa jafe nit ñi dem nañ ba làmmiñ ñi di génn ñuy yalkat comme ni xaj di yalkate in tahmil alayhi yalhaq wa in tatruku yalhaq ku bëgg a naan doo naan te xam nga ni ndox moo yore dund doomu aadama yàlla tee ngelaw li oxygène taxaw ngelaw li na tekk loo génn mooy tourné waat poumon yi di fees dënn yi di tàng bakkan yi du am ñandaxit bët yi du am rangooñ nopp yi dootu dégg bët yi lëndëm boole ci nga mar naan ndax boo naanul fuumoo yi du ubbi bu ubbeekuwul doo noyyi boo noyyiwul da ngay alku seen noyyi aju kenn ku nekk wër ñuy wër loolu borom bi taala wa tabaarak dafa bokk ci xikmaam yi muy nattoo doomu aadama mag ñu jóg ndaw ñu jóg fu ñu daw teen bu ñu dem duñ fa fekk ndox dex bu ñu dem du ñu fa fekk ndox ah yàlla dafa tontu woon nu huud ne ko bal huwa mastaajaltum bi riihun fiha adabun alim ne ko huud nee leen dañoo yàkkamti ngelaw ngi ñëw boo xam ne mbugalu kese la àndal gis na ngelaw loolu borom bi nee na ma tadar min cheyin atat alayhi illa jaalathu karramin nee na gis na ngelaw loolu du bàyyi dara lu mu romb lu dul da koy mokkal gis nga seen montagne yu mag ya ñu tabaxoon ay kër dafay mujj mokk ba mel ni sunguf étage ya ñu tabaxoon day mokk ba mel ni sunguf tool yi garab yi day mokk ba mel ni sunguf wala borom bi ne maa tadaru min cheyin atat alayhi illa jaalathu karramim mbokk yi gaa yi nag am problème léegi ñu ne nañ daw uti kenn garab gu ñu jub xob ya naaw xob yi xam nga tàngoor wu mel noonu ak ngelaw mënta bàyyi xobu garab garab yépp lax xob yi dem dëkk bi tàng jër naaj bi tàng jër ngelaw amul ndox mu ñu naan amul dara amul lan moo ko indi mooy yàlla yal nañu yàlla musal ci mooy yàlla lan moo ko indi bokkaale yal nañu yàlla musal ci bokkaale lan moo ko indi ay bidaa yal nañ ci yàlla musal mbokk yi bàkkaar baaxul ci aw xeet baaxul ci yow kenn baaxul ci keneen yow jigéen bi bàkkaar bi ngay def baaxul ci yow yow xale bu góor bi bàkkaar bi baaxul ci yow te wallahi ummatu muhammad yàlla du leen alak ci mbooloo mais par kenn kenn da nga jot mbugal da nga mel noo meloon toog ba càgg xool sa bopp yeddaatal sa bopp dawal dellu ca càkka yi mbokk yi mbir mi nag mu ngi noonu ñu jàq sonn yàlla subhanahu wa bàyyi leen ba diire bu yàgg ay fan ba ñu lool yàlla yabal niir niir bi ñëw rek ndeysaan ñu ne hada aaridun mumtiruna daw leen daw leen asamaan si niir na nañ leen dem bu tawee ñu ŋaaŋ ndax ñu naan ndox hada aaridun mumtiruna allahu akbar ndox a ngi ne nañ leen daw ndeke xamuñ ni yàlla da leen di dajale ñoom ñëpp ñu génn ci désert bi daw ñii ŋaaŋ ñii di tàllal loxo ñii di xaar démb ñoom ñoo li man man ashaddu minna quwwa du ñoo ko waxoon ne kan moo ñu ëpp doole démb ñoo reconnaître ñoo doon yàq montagne bu leen huut ne bàyyi leen bokkaale ñu ne ko fépp seey leen mooy yàlla ñu xas ko saaga ko tuumaal ko tey mi ngi nii yàlla ma ñu xeeboon daw nañ uti ko hada aaridun mumtiruna mbokk yi borom bi taala wa tabarak dajale leen benn par benn ñii uuf seen doom ñii boot seen doom ñii tee xale yi ñii tee bagages yi ba dëkk bi kenn manqué kenn amul ku feebar ku tëdd néegam kenn ñëpp ñëpp bu amoon ku feebar ku toog sax mais yàlla def na mbiram ba ñëpp ñëw bi ñëpp ñëwee nag ndeysaan di xaar ndox yaakaar ndox borom bi sànn yabalal leen mbugal moo xamante ni juróom ñetti guddi la juróom ñaari guddi ak juróom ñetti bëccëg mbugalum une semaine saxaraha alayhim sab'a layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuuma fa hal tara lahum min baaqiya allahu akbar borom bi ne xool leen mbugal bi ma leen mbugal dama ko tàggat سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما لما جاول فلي فترى القوم لا فترى القوم فيها سرعا يلا نينا خول نيت ني ñepp daanu فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية borom bi ne ne bu ñuy daanu comme garabu tàndarma buy damm ni muy daanu kikikik bëpp ci suuf ndax ponkal mos ngeen imaginer ku toll noonu kon sa ponkalaay bi lu mu lay téye doo dem nga jaamu yàlla sport football daw xale yu góor yi bu cinq heures jotee takk dàll yi ne ci terrain bi football ba dégg nodd dem toog di préparer di sangu di diwu di waaj gee paase far jaare nga far fa jaare jaar di bañ la ci bis ak gee seytaane moo la koy def man dama ciy xuloo fii damay toog yéen gis ngeen ñi ngeen nekk di football nii bu ñu ko bañ de mun ngeen foo mais da ngay def sa xel ni yàlla mi la may temps ba ngay fof wax dëgg yàlla boo footballee une heure de temps xam nga heure toll xam nga léegi timis presque dix huit heures quarante cinq la mais boo fooyee football ba dix huit heures trente jógal demal mais ki gën a dof mooy ki football ba pare wëlbatiku ñëw waxtu wi ñu nodd mu ne day xaar ba sangu ba pare doog ko jël léegi yàlla mooy toog di la xaar yow quoi yow doomu aadama yàllaa lay toog nga xaar nga préparé ba jekk nga doog a julli déedéet demal nga julli ba pare booy sangu nga doog a sangu comme ànduloo ak sawe mbokk yi borom bi ne saxaraha alayhi nit a gën a xam boppam kenn ku nekk ci ñun defal nii sa loxo rek sa bopp nga sëgg nga xalaat ne man ana toogal nga xalaat di nga xam ni biig bàkkaar di nga xam ni biig def nga lu dul loolu di nga xam ni biig tëbal nga ay wax di nga xam ni biig nuyu nga jigéen di nga xam ni biig jël nga xaalis jàmbur di nga xam ni biig tiñaan na nga nit dong nga nit nga dégg si xalaatal bul dem munu munu rëcc borom bi nee na fa hal tara lahum min baaqiya xaacu ñëw mbugalam yàlla ñëw kon loolu moo dal nitu huud ñun nañu moytu mu dal mbokk yi ñu nañu góorgóorlu sàmm suñu borom sàmm suñu borom te jaamu ko te topp ko dama am benn message démb maa ngi ciy wax ak ñi ma bu ñu ma yónnee indiwuma portable bi sax mais ma message bi dama ko bëggoon lire message bi mooy benn góor mooy laaj mu ne dafa ma jox audio bi laaj ma ustaas ne ma lii ndax wér na dafa am benn ustaas bu ciy wax nee na dafa am suuf bu nekk ca kaw aras bu tudd Shamsama ardu Shamsama ak la mu taw yem ne na am na salaatu boo xam ne boo koy jàng yàlla dafa bind ay mbindeef ñoo xam ne ay ruuxaan lañ mbindeef yooyu di judduwaat ci salaatu boobu du dëgg pour mu gàtt du dëgg oustaz boobu daa war a rus ragal yàlla xam nga li gën a bon mooy ngay toog di wax nga xam ni waxoo dëgg ardu sama su amoon valeur bi ñu ko jox ba di ci wax ñun ummatu muhammad ñu war koo xam yàlla dana ñu ko wax dana ko wax yonent bi yonent bi ku yeewoon yonent bi ne ko ne ko maa ardu sama daa naan kan la ko yàlla bind yeen yonent bi rek nga laaj ko ardu sama kan la ko yàlla bind laajal umar ibnu xattab ndax ardu samsama am na salaatu boobu ñuy wax ne moom day def yàlla di multiplier ay nit ñu lay ñaanal salaatu bu muhammad xamul aboubacar xamu ko zeyna abidin boo ko laajoon salaatu boobu xamu ko salaatu boobu am valeur ba ëpp doole bi yonent bi indi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nañ leen di jëfandikoo xel man weddiwuma tuumaanuma mais diine di ku ci wax lu dul dëgg su ma ko xamee dama naan ne lii du dëgg ki ko wax na tuub ci kàddu gi mu wax réeral nañu bare bare bare bare bare wax jooju amul wéru wóoru du xadis du sunna du waxu sahaaba du waxu ñi baax ci xeet wi kenn waxu ko ci nit ñi nañuy tuub gis nga borom xam-xam yi wallahi lu ëpp ci li réer ci xeet wi ñoo leen réeru li ñuy wax duñu ko teg fenn wax rek toog rek ne istilaaxaat suufiya yi la quoi seeni kii la rek ñoo ko tëral teg ko ndax diine foofu lañ koy jëlee mais li ñuy jël ci diine jàpp ni tuyaaba la bu aw nit ñi war def كوكو يالا داك كوي واخ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه ما مجيخ لب لو نيو جيرين تي سونو دينا يونس بي صلى الله عليه وسلم واخنا نينا ما من شيء يقربكم الى الله ويبعدكم عن النار الا وحدثتكم به الله اكبر تما واخ دغ نينا امول دارا لو لين دي جيغالو يالا دي لين سورلو سفر لودول واخنا يونس بي لوم واخ دو وما ينطق anil hawa bu fekkoon ne am na suuf boo xam ne yàlla bind dafa bind ay rawxaan rawxaan yooyu ku jàng boobu salaatu rawxaan yi yokkuwaat yokkal la tiyaaba waaye lu tax muhammad xamul loolu booxuñu ko wala boog muhammad dafa ñu nëbb affaire yonente bi dina nëbb yonente bi dina nëbb daan ñaareel bi ndax yowmal qiyam nit tal na fa bàyyi wala doom da ngi jéggi benn waaye ndeysaan kooku moom dama ko xool ba jàmmal kii moom ku ma ta yëram la quoi nit koo xam ne amul papa mu ñëw ci kilifa gi ne ko aw ma papa mu ne ko yowmal xiyaam may sa baay loolu xel nangu loolu yowmal xiyaam may sa baay yowmal xiyaam xoola benn aaya rek laa ci tontu pare fa ida nufiqa fi suuri fala ansaaba baynahum yowma idin wala yatasaaluun yàlla wax li moom moo wax le xool leen buy dëgg allahuma hadina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم ويسأل المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم